kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a ci lenn te jiituwuma fi ëppuma fi xam donc loolu mu koy def ba def def ma directeur général Petrosen ñu Je diir mu woo pour yóbbu ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu chaque fois mooy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 finalement man ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy mine ak energie ndax mang la ci liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la bo xam je me sens à l'aise monama kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça ennoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre lolou lañu ñu donc ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëm jamono mu woma te lolou aussi dañ ko wara a pour l'histoire kérok assemblée nationale bo gisee ñu def li ñu def